bébé Non, yàgguma joué théâtre c'est la première fois may joué du théâtre yi sama benn xarit moo moo ma ko proposé loolu tax ma bokk ci moo soxla woon ma image mu wax ma ko ma ne ko d'accord amul benn problème laaj samay waa kër ñoom tam amul problème pour ma joué ci noonu laa def ba bokk ci daal. d'accord donc yow yaa ku bees la ci milieu bi mais comment tu trouves le milieu est-ce que tu t'y plais

Mais comment tu vis ça Bon, naturellement, hein? naturellement, comme d'habitude. donc euh, gis nañ série bi dafa am euh, dafa am buzz comme ni ñu koy waxee euh, nga dem nekk célébrité est-ce que sa vie est-ce que changé Non, non non mosul change. non non je pense pas que li mën changé sama vie li ma mel laay mel ba tey te noonu laay mës a mel tamit naturel je suis naturel donc. d'accord donc nga ñëw année bii gis nañ ni que. Euh, série Mbetteel ñëw na nga nekk une star mën nañ ko wax mais nga dolli si aussi marié wu tout récemment ak une star mm-hmm. euh, bëgg rek ñu bëgg nga wax ñu yow yaay jabaru kan ak comment tu vis waaw man maay jabaru Balla Gaye 2 <laughs> sama vie privée nag bugguma ci dugg bugguma ci wax mais je suis la femme de Balla Gaye 2 léena xam nga euh, la allah avant ngay nekk jabaru Balla Gaye 2 dañ la bëggoon ndax am ay fans aussi mhm. donc euh, je pense que loolu vie privée ah ma bëgg rek nga bégal sa fans yi bégal sa fans jëkkër yi wax leen yow kan? euh, ah comment nak ngay dundee ak Balla Gaye 2 sa mariage ak Balla Gaye 2 nga wax ñu daal nit que depuis boobu je la si dara dégguñ la nga wax feeg yooyu donc bëgg nañ rek nga wax na non loolu non sama vie privée la mhm. bëgguma ci wax mhm. mais comme laaj nga ma loolu sama jëkkër la def ma bëgg ma bëgg ko loolu tax ñu sëy kese jeex na bi ci bi ci am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yow naka nga ko gisee comment naka nga koy dundee fàtte naa ko man histoire bi waxatuma ci defna sama patt nopp. waaw takk nañ ma ci farata loolu moy essentiel bi waaw maintenant je suis madame Sakho. madame Sakho aawa <laughs> man dal sama aawa bopp la